réew ba Pape Mbengue diggante général bu ma nekk Fatick Buur Saalum Thiès ndeysaan borom alfali baa ngi noonu ndeysaan ceeba ngay def ña nga koy xool e waay final demi final bu mel ni final lay ku daan jël final bi ñoom ñaar demi final bu mel ni final boobu am na dañu woon ñooy final loolu gañewul woon ñooy final. te lamb aayewu ko. waaye dem leen ngeen kari ko ci Gaston Production. waaw mi ngi bu ngeen ko bëggee seen ànd rek. noonu. ndeysaanam. yaa nga koy foog. général bu Malick. pour Saloum pare na. waaye ñii ñaar seen combat lu muy bax la. seen combat ci luy bax la amul ruq bu set. seen combat ñoom ñaar ci luy baax la amul set général pare na général pare na Toubacouta pare na arbitre ngi wax ak ñoom li làmb bëgg ak làmb bañ ma ngay consulté ay juge am nee nañ pare am na lu muy wax ak ñoom ndeysaan mi ngi noonu na kenn seen diggante ndax dina am yaakaaruma ko moom ak bu Malika. ñaari bandi lan nag ñaari kenn du may sa morom dara diggante G diggante G diggante G ak Touba diggante G daw na di ko plaqué G lii mënut yomb combat bii mënut yomb ñaari ñaari bañkat lañu. jël na ko busulu na ko. busulu na ko wër na ko. wër na ko luy xew. lu xew daan na ko. daan na ko quatre appuis. c'est le champion aîné. c'est le champion. d'accord na dëgg la. demi-finale. ndeysaan mi ngi noonu. rafet na.